Malick Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ndeye Comba. Malick Diop nga nekk secrétaire général bu regroupement de taxis urbains du Sénégal également chargé de la communication euh, d'abord gis nañ seen regroupement bi def nañ benn alerte jëmale ko ci njiitu réew Sénégal par rapport au BRT bus rapide transit lan moo waral alerte boobule lan ngeen ragal. waaw Ndeye Comba gannaaw ba ñu ci suñu biir waxtaan. gis kat euh, euh, BRT. ñu ngi koy liggéey te bientôt ci weer yi ñu jëm dina commencé service am si wax ni nañu génn def benn alerte ndax dañu gis ni état du Sénégal mi ngi liggéey sur les nouvelles transport de masse muy TER te TER a ngi commencé di doxal BRT mi ngi waaj a ñëw te forcément day def ay impact ci transport bi mu fi fekkoon dina am impact bu mu fi def ñu nag am na lu ñu waxtaane woon ak nguur gi gis ni kat pour ñu bañ yàq système de transport bi nga xam ne moom lañ fi fekk muy wàllu taxi yi pour ñu bañ am jafe-jafe faaw ñu accompagner leen ni leen di accompagner nag mooy ñu def une programme de renouvellement de parc taxi pour permettre leen ñu joxe ay qualité de service bu baax nga xam ni dina am confort ak sécurité bu doy bi nga xam ni moom la client bi soxla nga xam ne bu génnee mën a bu ko neexee mu tànn BRT wala mu xool ni kat taxi bi am na confort ak sécurité bi ma soxla kon jarul may dem di jëli beneen oto. loolu dañ ko def pour sauvegarder suñuy emploi te it pour joxe tam meilleure qualité de service mais looloo tax ñu génn di alerter monsieur le président de la République mhm. ak suñu ministre du tutelle monsieur fay pour wax leen ni leen bu fekkee la ñu war a def defuñu ko bu BRT commencer daw nouvelle transport de marché te accompagné wuñu acteur de transport yi ñu fi fekkoon dana am ñu bari ñoo xam ne ci ñàkk seen liggéey looloo waral démb bi ñu dajee ba pare ñu nañ ko soldé ak benn point de presse pour alerter le gouvernement du Sénégal ak le président de la République monsieur Macky Sall ak notre ministre du tutelle monsieur Mansour Faye pour ñu jël euh, mesures yi nga xam ne war nañ ko jël pour accompagner acteurs du transport yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di liggéey avant nouvel transport de masse yi di accès. Euh, tey jii boo ñu doon yaatalal Malick jafe-jafe yi nga xamante ni euh, dawalkatu taxi ñu ngi koy jànkonteel si yaatal lan mooy seen jafe-jafe exactement. waaw euh, taximaan yi li ñuy dund fi ñu toll jafe-jafe yu rëy rëy la ñuy dund ndax defe naa am na loo xam ne kenn dootu ko laajte léegi gis nañ ni secteur u dañ ko agressé si fànn bu nekk tey bu ma nee agression secteur u taxi tey gis nga li nga xam ne mooy mode de transport irrégulier yi nga xam ne moo xew tey bi nga si am na boo xam ne ñëpp a koy gis muy moto cag-cag yi lu ñuy gën a dem mi ngi gën a bari li nga gis sax sous région bi ñoo xam ne dañuy jël léegi moto di ko def si bus yi di ko indi biir Dakar di fi def transport irrégulièrement irrégulièrement gis nañ tam Euh, application yi nga xam ni euh, dañuy favoriser clando yi nga xam ni dañuy ubbi ay application permettre ay particulier ñu dugg fa di fa exploiter di def taxi irrégulièrement te amuñu permis amuñu licence amuñu assurance bu leen permettre pour ñu mën a def transport moomu gis nañ tamit wàllu clando yi un peu partout à Dakar ak war gaynde yi foo tourner am na garage u clando ak garage u moto ak ay application yoo xam ne ñi ngi dugg secteur transport ci wàllu taxi di fa def loo xam ni waruñu ko fa def te loolu jafe-jafe la bu rëy la indil dem na ba nga xam ni ñun ñi nga xam ni ay professionnel lañu am permis am livré am licence am euh, assurance bi nga xam ne moom la ñu war a nga xam ne mooy couvrir client yi yëpp dañuy liggéey xëy suba ba ngoon jot dootuñu gis gisatuñu suñu bopp ci liggéey looloo waral ñuy ñaan nguuru Sénégal ñu jël matuwaay yi ñu war a jël ñu ñuy laaj méttiwul mooy loi ak règlement yi nga xam ne moo organiser secteur transport da nguur gi fexe ku ko bëgg a def nga respecté ko ñun loolu lañ soxla jafe-jafe yooyu nag tant que nguur gi jëlul matuwaay yi nga xam ne moom la si war a jël tey jii am na rapport boo xam ne ITF muy organisation mondial du transport moo ko commandité euh, xamal ñu lan mooy berte ak TER xamal ñu kat bu fekkee jëlu leen matuwaay yi ngeen war a jël lu mu néew néew lu ëpp ñaari junniy emploi ay su secteur du transport dina ñàkk seen liggéey loolu nag mënuñoo croiser les bras bàyyi noonu sunu mbécc di naax saay moo tax ñu alerter gouvernement bi di alerter la président de la république pour ñu jël matuwaay yi ñu war a jël pour sauvegarder emploi yi nga xam ne moo fi nekk parce que mënoo créer mille emplois rey dix mille emplois te ñooñu ñëpp nekk ay père de famille nekk ay responsable boot njaboot gu rëy seen ginnaaw ñu leen a seetaan seen métier di naax saay noonu. ngeen toll Malick fan ngeen tollu ci xeex bi nga xamante ni yéen a ngi koy xeex euh, deux yi gis ngeen euh, circulation fi ñu toll ni est-ce que euh, deux yi sax ëppuñ taximaan ni fan ngeen tollu ci xeex boobu. waaw xeex bi ñuy xeex deux yi defe naa ni ay weer ci ginnaaw def nañ fi plusieurs actions def nañ fi ay conférence de presse organiser ay sitting def ay marche lépp def nañ fi def des ports de brassard rouge. yooyu yëpp def ko defuñu ko pour dara mais dañ ko def pour alerter gouvernement war ni leen kat ñi ngi bàyyi loo xam ni bis bu fi amee kër dana indi ay jafe-jafe yu rëy non seulement waxuma ci secteur transport bi mu fekk mais ci askanu Sénégal parce que ñëpp xam nañ ni insécurité de transport moom la moto yi indi fii ci réew mi tey jii bari na agression ak vol yoo xam ni ñu yor bëto dóoru yi ñoo koy def fii ci réew mi bari na tam insécurité de transport accident boo dénombré bi ñu fi bàyyi yaatale léegi ñaata accident mortel moo fi am kenn mënu koo xayma loolu yëpp nag nguur gi teg na ci bët askan wi teg nañ ci bët mais pourquoi duñu jël matuwaay yi ñu war a jël pour dindi loolu Sénégal réew ay loi ak ay réglement moo ko organisé mais ñun li ñu man mooy poser des actions syndicales pour wane ni kat nguur gi lii ngeen bàyyi muy raam bis bu fi amee kër dootu fi neex a jëlee te di ay jafe-jafe lay indi si réew mi réew ay loi ak ay règlement moo ko tënk kon dañu war a fexe ba képp ku bëgg def transport nga tënku ci loi yooyu règlement yooyu ñun loolu rek la laaj laajuñu lu ëpp laajuñu lu lu moyen moo tax ñu defoon nañ ci action yi bari ba démb nag ñu dajee defaat xayma gannaaw bilan yi sorti yi ñu fi def yëpp ñu waxtaan nag ñu ne bii paa dinañ ko soldé ak un point de presse pour alerter gouvernement bi pour mu xam ni kat li ñu doon jooy démb ak barki démb ba léegi mi ngi fi tey kon dañu war a jël matuwaay yi ci war pour jéem a euh, dindi fi jafe-jafe yooyu ñu kon yéen Malick da bëgg ñu jëlee fi carrément deux yi wala am na leneen lu ngeen bëgg lu wuteeg loolu. ñu jëlee leen fi carrément wala lan ngeen bëgg exactement si seen. si côté deux roues yi waaw mooy ñu organiser secteur transport. waaw mais deux roues boo xam ne benn mhm. moom moo organisé ni taxi war a doxee. autorisé nañ ko nag sur les autres régions ba mu des dans la capitale ici à Dakar tey jii. Euh, Dakar dañ fi tere képp ku fi def transport de personne vélo taxi dañ koy tere fii si si Dakar dafa am loi bu koy tere. Mhm. boo xam ni décret la boo xam ne nii 8903 moo fi nekk organisé li nga xam ne mooy vélo taxi. ñun nag li ñuy laaj mooy naka la ñu xamee ne ñii amuñu sañ-sañu def ko mais ñu bàyyi leen ñu koy def di leen yaatal di mbubboo ni dañuy def transport euh, de marchandise wala yu demee na ay yónni maag yu demee noonu te si ñëpp xam nañu dañuy def transport de personne. loolu nag ñun lañu bëgg nguur bi jóg si. Hmm. jël matuwaay appliquer loi yi yi nga xam ne moo fi am pour vraiment ñu organiser waat euh, suñu réew parce que réew du doxee nii réew du demee si anarchie nga hmm. xam ne fu waay neex jóg lu neex waay def ci secteur bu mu neex loolu réew du doxee noonu. Hmm. kon nag waaw ay citoyen lañ ñi ngi fi ñu war a def li ñuy nguur gi teg lépp sartoo nañ ko ñi ngi koy matalee ñi ngi def li ñu war a def kon dañu bëgg dem nguur gi jël ay matuwaayam. ba transport li ci bokkul mu dindi ko bi li ci bokk ñu bàyyi leen ko bu fekkee ne dañ leen bëgg légaliser mais dañ leen légaliser teg leen ci ay normes parce que koo xam ne yaa ngi dawal di def taxi de transport de personne amoo assurance bu couvrir ki ngay yàpp amoo permis de conduire pour dawal ci kaw tali bi doo jël benn mesure de sécurité mais loolu anarchie la loo tax nag ñun ñu ngi ñaax nguuru Sénégal vraiment li ñuy wax waxluñu ko rek pour protéger secteur taxi mais dañ koy wax pour askanu Sénégal yëpp xam ni kat lii ñuy bàyyi muy bay bayal tôt ou tard danger lay nekk système transport bi mu fekk mais danger lay nekk ci population Sénégal bi nga xam ne ñoo fi nekk di dund. Euh, nga wax sànq wàllum renouvellement parc automobile bi yéen ci seen côté euh, lan ngeen di suggérer exactement état wu Sénégal pour le renouvellement du parc automobile surtout ci côté taximan yi waaw xam nga bi nguur gi tàmbalee di liggéey ci nouvelle transport de masse yi ba taxawal lu ñu ñun dañu daje nguur gi waxtaan ak moom ak ay service am lu si mel ni CETUD lu si mel ni si transport direction des transporteurs waxtaan ak ñoom si nouvelle transport de marché mais pour bañ transport boobu rey transport bi mu fi fekkoon dafa am lu ñu tegoon comme plan d'action daal ni kat faaw ñu accompagner acteurs yi pour ñu am jumtuwaay yu baax pour mën a euh, présenter qualité de service bi nga xam ne moom la euh, askan yu bëgg léegi nag la nguur gi waxoon ni day def une programme de renouvellement de parc pour deux mille taxi mais programme boobu dafa war a commencer avant BRT di commencer daw waaye bu fekkee jumtuwaay yi nga xam ne ñun moom la ñu yor di ko liggéeyee dafa màgget oto yi am na plus de vingt cinq ans trente ans quarante ans oto yaa ngi daw fii si amatul qualité ak sécurité bi ci war ñu continuer bëgg a euh, dox ak euh, nouvelle transport de masse loolu mooy rey système transport bi mu fi fekk tax nag nguur gi lam ñu waxoon moom lañ bëgg mu góorgóorlu si mooy def ay effort ba renouvellement parc boobu mu ñu digoon mu jëmmal ko parce que normalement si mois de mars beeg avril bii ñu nekk jàpp mois de mai tey loolu fekk waroon a fekk loolu taxaw mais xamuñu loolu fan la taxawee te ñun regroupement taxe urbaine du Sénégal tooguñu di seetaan noonu bi ñu gisee ni kat certes organisation lañ dañuy alerter dañuy mener des actions syndicales mais ñun dañuy proposer ay ci biir loolu la ñu génnee alal yu bari commandité benn benn benn benn projet boo xam ni dafa jëm ci wàllu programme de renouvellement parc bi ñëw présenté ko service concerné yépp yu ministère du transport pour wan ne leen kat ñu ñi lañu gisee ni buñ ko organiser woo buñ leen buñ leen ci gungee accompagner ci chauffeur yi dañ am jumtuwaay yu baax yoo xam ni dinañ ci mën a liggéey te dinañ mën a ànd ak nouvelle transport de masse yi nga xam ni client bi bu génnee bëgg dem jëli liberté mën na am choix daanaka comme man taxi bii ma gis am na confort ak sécurité bi ma soxla pourquoi pas li tax may dem ba fële mën naa jël kii mu yóbbu ma fi ma jëm client bi wàcc tam si euh, BRT wala TER fi gis taxi boo xam ne am na confort ak sécurité bu taxaw mais day sawar pour mën a jël ko mën a dem ñibbi tranquillement bu ko defee dinañ mën a sauvegarder emploi yi fi nekk mais boo taxawalee projet yi mel noonu créé lu mat mille emplois si ginnaaw defoo dara yaa ngi rey lu mat dix mille emplois yoo xam ni ñun waxuñu ko rapport boo xam ne ITF ak organisation mondiale du transport ñoo ko commandité ñu xamal ne ñu kat bu fekkee yéen da ngeen toog nii jéemuñu si yéen dara lii lu mat ñaari junni acteurs yoo xam ne ñu ngi si système bi dinañ dem en chômage parce que dootuñu gis lu ñu liggéey. voilà loolu tax. Mhm. alerté. ngeen alerté euh, dernière question Malick Diop di euh, ban plan d'action. Euh, ngeen teg parce que yàgg na ngeen di alerter par rapport ak difficulté yi nga xamante ni yéen a ngi koy jànkonteel quotidiennement mais à part alerte bi est-ce que taximan yi fas yéene na ñoo dem grève wala marche wala sitting lu ngeen fas yéenee def. waaw euh, ñun bi ñu waxtaanee parce que mën nañ fi plusieurs actions lu actions yu bari mën nañ ko fi toog nañ tey nguur gi waxtaan toog nañ yeneen autorités yi waxtaan ñu dal lool suñu xel ba nga xam dañoo jël gànnaay yépp wéer ko. mais euh, bi ñu toogaatee ba gis ni kat xam nañ ni bientôt dans les mois à venir BRT dina commencé te la ñuy waxtaan nguur gi ba léegi gisuñu si dara moo waral ñu dajee démb waxtaan daal ni kat dans un temps nañu génne def benn alerte alerte nguur Sénégal ak sunu président de la République monsieur Macky Sall ak suñu ministre du tutelle monsieur Mansour Faye pour ñu xam ni kat ñun lañ doon jooy démb ak bërki démb tey la waalo gën a aaye ba tey ñu ngi toog di xaar nguuru Sénégal accompagner ñu pour ñu mën a ànd ak nouvelle transport de masse yooyu mën a liggéey suñu liggéey ñi ngi xaar nguuru Sénégal li nga xam ne bokkul ci transport mu mën ko fee jëlee pour ñi nga xam ne dañoo opté def transport mën a gis ci biir transport seen bopp. écarté wuñu nag benn forme de lutte mais pour l'instant fi ñu toll mooy def alerte nguuru Sénégal pour ñu xam ni kat ñun ba léegi ñu ngi toog leen déglu di xaar li nga xam ne moom la ñu waxtaanee woon ak ñoom. pour ñu teg euh, mën koo jëmbal bu ko defee jàmm ni ñooy. voilà foofu mhm. ngeen toll kon Malick Diop euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw ñu ngi lay sant bu baax Ndeye euh, Comba di sant seen groupe bi yëpp di sant directeur bi ak mbooleem bi nga xam ne ñoo nekk ak ci liggéey bi. vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm. voilà merci beaucoup Malick Diop may fàttali ni yow yaay secrétaire général bu regroupement des taxis urbains du Sénégal nekk tamit le chargé de la communication merci beaucoup. ok jërëjëf Ndeye Comba. beaucoup ok jërëjëf Ndeye Comba. beaucoup.